usbu'i yuqaddimuhu al-aalimu di defal ay bés bu jot ci waxtu wi ak oustaz ala rasulillah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen tatagal ci seen émission bi ngeen bokkul ak kenn di émission bii di Fatwa ñu ciy dalal rek al-allaama Cheikh Mouhamadul Hady Niass mu leen di indil ubbee ci laaj yi nga xam ne yéen a ngi ko fi yónnee ñu fàttali leen rek euh, bu ngeen fi yónnee ay laaj dinañ ko boole ci laaj yi ñu fiy fësal boo ko defee askan wi mën ko jariñoo boo ko yónnee fii ci Walfadjri rek ñu àggale ko sëriñ Adi mu tontu leen ni mu gën a wéree ni mu gën a leere euh, bu ko defee rek oustaz Adi ñu dalalaat la ci jotaay bi nga xam ne ñu bari dañuy yóbbante dil ak ngërëm ak sant xam naa daal euh, saa su nekk rek fu ñu taseel foog mu yóbbante ci yow ay cant ak ngërëm ci li nga xam ne yaa ngi koy def ci waxtaanu fajar yi ci rajo bi waaye itam li nga xam ne yaa ngi koy def ci e, fataawaay yi ñu koy rafetlu bu baax a baax e, di ko ñu am ñoo xam ne ca bitim réew la ñuy wootee di wax lu ni mel te xam naa ñi ko deful ñu ëpp ñu koy def ndax e, ni ñu koy defee dañ ci gis seen bopp bu ko defee rek ñu tatagal la ci jotaay bi ñu bëgg lay jotaay bi nag ak benn tomb balaa ñu ñëw ci laaj yeeg tontu yi muy loo xam ne mën nañu wax ne mooy cër bi gën a feebar daanaka ci euh, askan yi actuellement muy làmmiñ làmmiñ daal yaakaar naa musiba yi muy def léegi mu ëpp yu baax yi muy def ndax boo ca génnee allahu akbar ak asalaamaaleykum ya ca des day ajoo day ajoo segg fa ñu dul segg daal xëy na mooy bu ne allahu bari ñu ne wax nga dëgg ba ba muy naan asalaamaaleykum waaye bu sëlmalee ba pare rek làmmiñ mu ngi mel ne commencé na di dugg ci lu yoonam nekkul làmmiñ commencé na di àtte nit ki loo xam ne wóoru la làmmiñ mu ngi commencé di déggal loo xam ne danga nga ko waroon a weddi mu mel ne daal euh, feebaru làmmiñ bu fekkonte ne dafa am ay hôpitaux yoo xam ne dañuy ñëw di ko faj hôpitaux yooyu guddeeg bëccëg dañuy bari ay ay clients damay faral di dégg sax sëñ Mbaye si Abdou muy wax ne muy mel ne daal fen dafa saf suukar nee na nit ñi koo gis rek mu mu ngay fen rek mu mel ne fen dafa saf suukar léegi te fekk dafa wax kaani ba léegi di xanaa jamono tere noonu rek toujours dama lay dégg ngay wax ne euh, bi jumtukaay yi amee dafa mel ne sax yooyu dafa gën a yomb làmmiñ daana fen bu njëkk ba dëgg la waaye bi téléphone amee ak envoyé ak coupé collé ak envoyé message dal di ko envoyé mu dem muy mel ne ci la ci la làmmiñ war a wax ne wax ne léegi aha sama métier mi rek ci laa ko gën a mokkal dinaa ko wax ne maa ngi fii ci béréb sàngam te fekk nekkuma fa nga envoyé mu dem euh, dinaa ko ne maa ngi nii euh, ci sa wetu kër euh, fekk nekkuloo fa ba sax oustaz Ali dañuy faral di nettali ne waa ji dafa doon jox dafa joxe rendez-vous gars yi di ko xaar ñëwul ñëwul ñëwul ñu koy woo jëlul ba ñu ne a ah, xaar ñu woo ko ci fixe bi ci téléphone fixe bi nekk ci këram ñu woo ko mu sonné rek mu jël ñu ne allo kook mu ne allo kook kan la mu ne ah yow yow la ñuy xaar ba léegi ñëpp ñëw nañ yow yaa das ñu ne mu ne ah non soreetuma maa ngi nii ci wetu ci kii bi maa ngi ñëw fii ak daanaka jege na ñu ne ko déedéet yow ci fixe bi lañ la wooye mu ne ah tàmm fen rek temps ma fen rek moo ko moo ko moo ko yóbbu mu ngi mel ne daal euh, euh, làmmiñ euh, te yàlla am nu mu xitaab quraan yi boo ko seetee am na responsabilité bu mu ci joxe inna samha wal basara wal fuaada kullu ulaayika kaana anhu mas'uula nga xam ne cër yi par benn benn lañ leen di laaj seen responsabilité làmmiñ dinañ ko laaj li nga doon wax foo ko teg bët li nga doon xool foo ko teg te ku nekk yaay tontul sa bopp kon mu mel ne wàllu làmmiñ te itam te wa làmmiñ itam nekk na siisu tey boo xam ne aka moo bari ay diggante yi mu yàq diggante mën na nekk benn làmmiñ ñëw def ko ñaar euh, yu farriquuna bayna al mar'i wa zawjihi daanaka làmmiñ mooy mooy def loolu léegi diggante euh, ñaari xarit yu yàgg ànd làmmiñ ñëw yàq seen diggante euh, ñaar ñuy sëy làmmiñ ñëw yàq ko muy mel na daal jëyi làmmiñ di def Oustaz Ali ci biir société bi tey jar na taxaw rek ñu waxtaanee ko war a xam danger boobu war a xam ne làmmiñ mission la euh, jumtukaay la boo xam ne yàlla dafa am lu mu ko missionné bu génnee ci mission boobu rek mu ngi ci ay tooxi doon kon oustaz Hady li ñu bëgg tey daal nga lay taaye ni ko ci jotaay bi mooy euh, wàllu kàddu ak li mu mën a taalee pénc ak li mu mën a taalee kër ak li mu mën a taalee société ak li nga xam ne itam bu fekkoonte ne yem na ca yooyu yëpp ni mu ko mën a defaree Oustaz Hady alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala alfaatihi alxaatimi sayidina muhammadin nasiri alhaadi ila siratillahi almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim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 di tomb boo xam ne li ñu ci yàlla sant bu fekkoon ne defoon nañ ko rek lépp baax li ñu ci yàlla sant buñ ko wanee gannaaw ñàkk koo def te mooy li gën a bari lépp yàqu làmmeñ al oustaz xasan arab yi dañ ko tuddee lisaan te pourtant lisaan moom boo dindi woon laam gi rek mu tudd muy muy sinaan muy tekki ñaw ka muy ñaw ko goo xam ne dana la daggal mais dana la dog dana la daggal lépp lu am njariñ boo ko utiliser ci lu baax dana la dagg yow ci sa bopp ci sa dund ci sa personnalité ci sa diine ci sa ci sa ci sa ci say jëflante ci lépp lu amul njariñ làmmeñ mooy li gën a bon su bonee ci jëmmi doomu aadama ji mooy li gën a baax ci cëri doomu aadama yépp di juróom-ñaari cër yi yàlla togg nit ki pour mu war ko cee jaamu su baaxee làmmeñ mooy lu tuuti ci jëmm te rëy lool ci tooñaange arab yi dañuy wax ne saxiirul jarmi mais kabirul mi jëmmam tuuti na lool mais tooñaangeem rëy na lool gis nga yàlla mi ko bind buñ ne dafay ragal sax dañ nga wax da koo ragal lu tax làmmeñ fi ko yàlla denc amul benn cër bu mu fa denc làmmeñ ni ko yàlla tëjee ak ni ko yàlla gardee amul benn cër bu ko gardee ak bu mu ko bu mu ko tëjee làmmeñ tamit ni ko yàlla bennalee ci cër yi ci ci organes yi mu dend ak amul benn bu mu ko bennalee ci moom jëlal ma doom aadama li ëpp ci ay cëram yëpp dangay fekk muy ñaar rawatina cër yi sax ci bopp doo gis ko am ñaar koo fi gis ñaari nopp la am ñaari bët ñaari kàngam bopp ñaari am ñaari tuñ ñaari yaxu sikkiñ ñaari bakkan ak ñaari pax ya ñaari ñaari lex ya waaye nag làmmeñ moomu fekki ñay ñaar yàlla def ko muy benn amul benn organ bu sax ci bopp bu nekkul ñaar lu dul làmmeñ moom rek aynayni wa lisaanan wa shafatayni wa hadaynaahu najadayni waaye xam nga ne ba lisaan nay ni xamam fu ñu jëm waaye dafa ne wa lisaanan rek gis nga ko ti même boo doon jël yeneen organes yi sax ñaareel yi newul ci bopp sax yi ci ëpp ñaar la loxo ñaar la tànk ñaar la biir bi dafa xar nekk ñaar demet ba ci baaraam yi yaa ngi gis yi tabaarakallaahu juróomi baaraam nangam waaye làmmeñ moom ñëw rekk di benn su fekkoon ne am na lu muy jàngale mooy li muy jàngale mooy ne cër a ngi nii boo xam ne su fekkee lu baax rekk ngeen ca bëgg a def doy na pour mu nekk benn su fekkee da ngeen cee bëgg a def lu bon nag ëpp na pour mu ëpp benn moo tax mu jël làmmeñ def ko muy benn waaye xool ni ko yàlla tëjee xoolal làmmeñ yàlla denc na ko ci kaso gu ruqe ruqe kaso goo xam ne mënoo caa yegg mukk lu dul nga toj miir wala nga dajji bunt mooy ñaari tuñ yi kaso goo xam ne bala nga ko boo tàjji woon bunt bi fokk dangay ngay traversé ay gardien muy nekk 32 gardien ñi armé wu muy bëñ yi ne doo fi jaar de waaye léegi-léegi làmmeñ ak xereñeem dana nelawloo gardien yi màbbu kaso gi taxaw ci digg pénc mi wax loo xam ne day tas pénc mi dana wax loo xam ne soppe ak soppeem xarit ak xaritam dëkkandoor ak dëkkandooram dana ko yóbboo mu jël ngànnaay di xeex ak moromam mooy xam sa dëkkandoor ci réew tey réew yi yëpp ñu dëkkaa ñuy xeex boo toppee la taal guerre ba làmmiñ a ko taal mënta nekkati mooy ñëw fekk ñaar ñoo xam ne seen ànd ak a yàgg ak a rafetoon ci at yu limu benn seconde làmmeñ wax ca lu yàq seen ànd ga yépp làmmeñ moo mën a ñëw fekk doom ak baay nit doom xolam saxee ci baayam ak baay nit doom sax eh, xolam saxee ci moom ba bu dee ñëwoon mun a naa dee bàyyi fi sama doom bi mu walee mer na mu war a mel làmmeñ ñëw bàyyee ko ci doom ba baay gedd ko làmmeñ ñëw bàyyee ko ci baay jëm ci doom ba doom gedd ko làmmeñ mooy fekk ñaar ñu ànd moo la teree woon nelaw muy muy sa soxna si nga xam ne bi nga koy bëgg fu na jaar nga fa ci ñaanlu fu na jaar nga fa ci listixaaru fu ne jaar nga fa ci yëlli sa alal ñu engagement bu ñu la wax nga ne pare naa ngir def ko da nga ko da nga ko jox can nga ne waaw da nga ko waajal nga ne waaw da ko xottil nga ne waaw da ko dëkkal nga ne waaw bu feebaree da nga ko faj nga ne waaw ma bu ab problème bu mën a am da nga ci taxaw nga ne waaw waaye nag làmmeñ ñëw jaar ci seen diggante façon jaarin woo xam ne soxna sa mujj na suur jëkkër ja jëkkër ji mujj na tamit suur soxna si kenn bëggatut cee gis sa morom demeet ci nit nit ku ne ak àndandooram nit ku ne ak mbokkam la koy yàq boo toppee tànk yi rek làmmeñ la moo tax Abdullah ibn Mubarak dañ ko mës laaj doomu aadama moom lan ban cër mooy bi gën a baax ci moom mu wax waa gi ne ko demal nga rendil ma xar mu rendi mu ne ko indil ma làmmeñ wi mu ne ko bii mu ne ko demal mu laaj ko ne ko doomu aadama cëréem yi ana ban moo ci gën a bon mu ne ko demal nga rendil ma beneen xar mu rendi ko mu ne ko indil ma làmmiñ mu ne ko bii mu ne ko diddaani laay samiaani ah mu ne ko ah kay li ma la wax leer na ñaari safaan mën naa dajee ci lii làmmiñ wii nga jëlee ci xarm bu baaxee mooy li gën ci cëri doomu adama làmmiñ wii nga jëlee ci xarmi su bonee mooy li gën a bon ci cëri doomu aadama ndax làmmiñ wii bu baaxee mooy tudd baatu seede bi di kennal yàlla ca kenn nam ka mooy jàngal Quraan mooy jokkale mbokk mooy mooy mooy mooy jàng salaatu ala nabi mooy def istixfaar mooy def tasbihaat yi mooy def maanaam timit xasbala yi yooyu yëpp làmmeñ a koy def te yooyu mënta ñàkk waaye nag làmmiñ bu bonee timit nag mooy def safaan ba mooy jëw mooy rambaaj mooy xaste mooy wax lu tax mbokk yàqu mooy mooy mooy mooy wax lu tax sëy yàqu mooy wax lu tax ak njureel yàqu mooy tax mooy wax lu tax ak baayoo yàqu mooy wax lu tax ak dëkkandoor ñagas mooy wax lu tax pénc mi yàqu kenn ku ci nekk yan sa morom ne su ma ko gisee tey mu dee léegi léeg sax dañ lay wax wax kàddu mooy waral tey sax yaa ngi guuxal nit ki mer te fekk gisaguloo ko di ko ñëkkal sa xar-xaram te fekk sax yow gisaguloo ko hmm. lu tax dañoo ñëw nettali la ci moom ay kàddu yu ñu wax ni moo ko wax rek loola mujj loola mujj maanaam euh, tàng sa xol bi. te boo te boo seetloo am na ay ay jikku ay yu araam yu bari yoo xam ne làmmiñ a nekk ci ginnaaw bu ñu nee sumaa ndéggatal xiiba yooyu yëpp euh, dafa mel ne daal làmmiñ daal yi mu mënee te li muy def te te baaxul man dafa bari. dafa moo gën a bari. Mhm. moom du bu bu bu defee jëyee rek boole na ci keneen ndax noppee koy dégg. <laughs> waaw waaw moom dafa dafa doy waar. feebar la buy wàllaate la. <laughs> waaw feebar la boo corona la <laughs> la boo xam ne Xasan dafay wàllaate hmm. moo tax yonentu bi sallallahu alayhi wa dafay wax ne cër bi gën a dansé ci cëri doomu aadama yi mooy làmmiñ. cër boo xam ne tey doomu aadama yi bu ñu demee safara téeméeri nit juróom-ñeent fukk ya ak juróom ñeenti ñëpp boo laajee li leen fa dugal mooy làmmiñ même boo demoon ba ci kaso yi sax nga doon tey di def licence ñu dugg ci kaso yi la ci ëpp boo leen seetee làmmiñ moo leen fa dugal. Mm, bu ca génnoon rek. bu ca làmmiñ génnoon bu ca génnoon bu ca làmmiñ génnoon rek nga génn ca. lu ca gën a bëri tey boo seetee te mu ne safara ña fay dugg ëllëg Euh, safara maanaam làmmiñ moo leen fay dugg fekk saadu la doon waxa rek saadu ku féex la ñëw wax yonent bi ne ko wa inna la mu aaxisuuna bi maa natakallam ñun li ñuy wax nii boo léegi yàlla dafa ñu cay mbugal di ñu ko jàppee mu ne ko sakkalat ka ummuka wa hal yakubu nnaasu fi nnaari ala wujuhihim illa xasaidu alsinatihim mm-hmm. ah yow fii yow daal saadu yaa fii xanaa xamoon nit ñay jël seen xar-xaram ya di ko këpp ci safar ëllëg ñi leen cay këpp la ci ëpp seen ngóobiti làmmiñ rek Mm-hmm. moo leen ko yóbbu. moo tax gis nga làmmiñ dafa doy waar rawatina nag léegi wax dafa yomb. Mm-hmm. jumtukaay yi tax wax yomb yomb tasaare wax yomb defar wax yomb yàq wax yomb te lépp bu set yaa mi ngi soppeeku dorog ci yow ngay ànd ak moom muy sa téléphone bi moom da ngay wax a wax ba si yàgg rek nga laal benn buton rek. tasaare mu dem fu nekk. adduna tukki mu adduna bi tukki. Hmm. te man sax waxuma la dama damaa jëlale jëw ya ngir bon nga damaa jëlale tamit rambaaj ya damaa jëlale xaste ya waaye tey wax yi nga xam ne da nga koo wax ki nga koy wax ak gëm ko ba man cee dépendre te yow mii di ko wax gëmoo ca dara. ndeke foo biyee la ndeke foo biyee la nga sànni ko. mu mu basé wu ci nag mu wu ca nag. te wax jooju nga wax ko tey ba mu basé wu ca waxaat na ko keneen kooka basé wu na diwoo ma wax kooka waxaat keneen mu nekk seen boo xam ne. bii bu màbbee rek dafay màbbaale yooyu yépp nga ne waa ji ak a mën a nar waay kon li ma waxoon fekk ka ko waxoon a mën a nar moo tax mbir ma soqeekoo ca ba gis nga damay wax ne wax yi ñuy wax di ko sànni tey bu fekkoon ne dafa soppeeku woon mbalit ñi koy sànni mbëbës mooy ëpp mbalit ma fa nekk. dina bari te xam nga nag ab gor waxuma sax jullit wala nit sax liñ mën a jàpp ci moom du dara lu dul kàddoom nit bokkut ak bàyyi ma mala mën nga koo yeew ci buum. ne ko toogal fii su ma la soxlaa fekk la fi mais nit kenn du ko yeew ci buum xam nga liñ koy yeew kàddoom nit ku nekk kàddoom rek lañ ko mën a yeewee waaye doo ko yeewee buum buumu ndigg mu mel ni golo doo ko jël di ko yeewee buumu baat mu mel ni mbaam mais yaa ngi koy mën a yeewee ci kàddoom kàddoom googu ñi war koo yeewee nag bu kàddu googa bu buum googa daggee lu fa nekkati te fu mu ne daf mel ni société bu ñu dund ku la ëpp daraja moo la daq nar ku la ëpp daraja gën laa rëy colaay sol darajoo xam ne tabaarakallaahu hmm. quartier bi yëpp xaj nañ ci daamine nañ ko ba mu baax ba mu fees ba ca suuf waaye bu waxee rek billaay bu waxee rek nga xel ko kàcc rek fen rek te xam nga li gën a yées ci penc li koy gën a yàq mooy borom daraja yuy kàcc borom daraja bu naree rek yàq na société bi penc bi lay dal penc dafay yàqu ndax la muy wax ñi ko xamul ñu bari dañ koy gëm ngir darajaam ja borom juddu bu rëy bu bu fekkee dafay kàcc la muy yàq dafa bëri te yooyu moom lañ bëri le borom ba tànk bu kooku yàlla jox ko dara gi ñi boole jox ko ko bu kàccee li mu yàq dafay bëri te fu mu ni jamono ji dafa mel ni ku la ëpp ndoom ba tànk ku la ëpp juddu ku la ëpp daraja ku la ëpp alal man sax borom alal laa ci gën a yéem yow dem ba am sa alal di dimbali nit ñi sax boole cee di fen lu ko jariñ lu ko jariñ day fekk nga miin ko rek waaw xam nga waaw léeg-léeg nga gis koo xam day fen fen boo xam jaru dimbali nit ki rek mhm. kenn toggul la ko boo ko defee yàlla fay la boo ko defut yàlla du la ca mbugal ca yaa ko moom nga dugalaat ci nga dugalaat ca loo xam ne day war nga dem sax waaw ah, te fen da nekkul lu simple yonentu bi bàkkaar bu ne gaaral nañ ko ko nekkul ndax jullit dana ko def mu ne déedéet ba jullit dana ko def mu ne ah kay ànd ak bon rek wax nañ ko ndax jullit dana tàppet mu ne ah kay ànd ak ak bon ah, hmm. yi ñëw tuddaat ko yu bëri jullit dana nay mu ne ah kay ànd ak bon waaye bañ ne ko ndax jullit dana fen mu ne déedéet jullit du fen ndax lu ko waral mooy wax dëgg moo la boole ci diina ji kon boo wax dëgg bokkoo ci hmm. ndax ba nga ñëwee damaa bëgg bokk ci diina ji adhéré wu lu ñu la njëkk wax waxal dëgg ni mooy nga kennal yàlla ca kennam ka ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ko wax nga dëgg su boobaa nag tamit wax dëgg yàlla loola moo la boole ci diina ji. boo ko dindee rek. boo ko dindee nag kon ñàkk wax dëgg bokkatu. Mm. Mm. moo tax nit ki bu fenee fen wa dafay summeeku ci moom maanaam dafay summi gëm yàlla am nga comme ni yëre yoo soloon. Mm. te te Oustaz Hady boo seetee ci euh, société bi comme ni ñu doon wax ci jumtukaay yooyu dafa dem ba euh, fen am na waaye fenal sax dafa amat léegi dafa am maanaam da wax lu gudd ñu dagg ci lu gàtt. génne yenn baat ci tuuti yu xaw a rafet kole ko ñu ne yow yaa wax nangam ñu tasaare ko nag. loolu laa doon julli ci yàq wax moom laa doon wax dama nañ toll jamono joo xam ne yàq wax. yàq wax dafa yomb. mooy wax nga lu rafet te buñ jëloon wax jooge ñu kole ko bàyyi ko noonu rek ñu jël wax jooju kole wuñ ca dara gor bu ne mën koo dégg te du la déranger waaye nag ba yàq wax yombee ngir jumtukaay yi nga dagg kole dagg kole ba pare sànni ko ci. Mm. net bi ne diwa wax na ne diwa wax lii. Mm. ki ko xamutoon fekk dégguwutoon ko saanal wax ja su boobaa yàq nga waxam ji te nit ki boo yàqee waxam rek yàq nga ko. parce que wax boobu te loolu sax am ci alquran mm. te am tey boo mm. jëwoon ci alquran rek ne. waylun lil musallina fa nga em ci phrase boobu da ngay tukkal àdduna. ne xur wa nekk safara ñeel na ñuy julli. ñuy julli nga yem foofu yàlla yemut foofa nag. nga nga coupé ko nga coupé loolu rek tasaare ko. waaw kon kay da wax ne ñun jërëtu ñu julli. safara laa la yóbbu loolu na mel na kon lépp rek alxuraan ji am na ci baat yoo xam ne boo ko daggee rek kenn du ko mën a dégg. Hmm. te moo xew. Hmm. ko dagg fii dagg fii dagg fii la la arrangé pare tasaare ko am na ñoo xam ne sax tey loolu la hmm. ma loo ci a dagg rek. waaw noo mën ba ñu mën koo collé motif bañ bañ koo mën a collé collé motif. nga am na tey tey ñoo xam ne tey loolu rek mooy seen liggéey. nga xam ne sax moom ci boppam bu ko dégloo sax day naan ah lii de lii de baaxul. kañ laa ko waxoon kañ laa lii de baaxul <laughs> daal ñu ngi dund jamono joo xam ne jamono ju méttee méttee xasan la mm-hmm. billaay ñu ngi dund jamono joo xam ne jamono ju bona bona bon la boole kook tamit jamono ji ngay toog sa xarit sa soppe sa soxna sa jëkkër sa mbokk kenn ku ci nekk bëgg nga am ci sa àndandoor bi mbaa sa xarit bi mbaa sa kii sa jëkkër ji benn dossier boo xam ne da ko ko bu ëllëgee rek moom nga ko yeewee ci buum tey xam nga bari na koo xam ne tey place ba mu doon nekk di fa liggéeyee ñàkk na ko lu ko ko yóbboo xaritam bu ko enregistré mbaa jabaram ci loo xam ne tey ba muy ànd ak moom jàpp na ne suñ diggante neex na géej la goo xam ne ndox maa ngay daw ca mbell ya ca cosaan la ba tax sa xol sell ci moom nga yullil ko ba yulli ko lu nekk ci sa biir fekk moom ma ngi koy enregistré def dossier di ko denc mm. bu ko liggéey bu la laajee loo ko joxut bëgg laa santaas mënoo koo jox rek mu xëy publier ko ci net bi nga mujj xëy yàqu mm. te la koy def mën naa am yéen a bokk bi yéen a bokk benn lal bu ngeen di tëdd moo tax gis nga bu ñu toppee njàngaleem yonent bi dañu am jàmm yonent bi dafa baax te mën a jàngale dafa ñu jàngal ba jàngal ñu nu ñuy bëggee parce que ñu bari mënuñoo bëgg xaw na ma waaye jàngal nañu ba jàngal ñu nu ñuy bañee parce que ñu bëri mënuñoo bañ yow su fekkee ne boo bañee nit ki bind ay titre taalif téere ci moom saaga ko xas ko bu ëllëgee bu ngeen demee ba yàlla jox ko teraanga ngeen jub maanaam nga bëgg a jubóog moom bu ëllëgee da ngay rus ñu tegalaat la loolu ñu tegalaat la yaa waxoon lii da ngay mujj rus sa doom yi rus sa mbokk yi rus yonent bi nee na yow mënoo bañ waroo bañ kenn mm. ndax mënoo bañ mm. fekkee boo bëggee nit ki tamit yullil ko sa secret yëpp ne amul benn ay amul sa jaani biir bàyyiwuloo ko dara dugal ko ci sa ruq yi dugal ko sa ruq ruqaat yi lii mu caméra ko lii mu jël ko enregistré ko bis bu ngeen demee ba meroo doo sax bëgg meroo am na ñoo xam ne mënuñoo ñàkkante ndax xam na ne bu ñu ñàkkantee rek am na dossier bu ko waa ji dencal te bu ko publier du baax ci moom waa ji mujj di la santaas rek ngay nangu loo xam ne sax xam nga ne sax du sa jikko su ko defee tamit nag moo tax yonent bi ne ah, maanaam ahbib habibaka hawnan maa asa an yakuna baghidaka yawman mu ne sa soppe bii loo ko bëgg bëgg bëgg ko nànk defal nànk ndax mën naa am ëllëg mu nekk sa noon sa noon bii loo ko bañ bañ bañ defal nànk ci mbañal ga ndax bis mën naa nekk mu nekk sa soppi loolu nag dafa mel ni tey mënoon nañ ko jàngal politiciens yi dafa mel ni wax jooju bi ko yonent bi wax tey politiciens yi lañ ko daan wax juboo ci ànd uti bañ am lañ doon ut dara de desul war koo jariñoo ñu mujj noonu ku nekk jàmm sa morom ki mën ku nekk sa jàmm jàmm sa morom wax lii ka doon tagg tey ne mooy ki baax ba ma àndoon ak moom tey teqalikoo nan nga ne yaay ki bon ñi ci gën a ñàkk sens nag mooy ñoo xam ne ndey saanam fu ñu toll dañuy dañuy dañuy dem ci tele yi rek di wax wala ñiy wax loo xam ne sax ñoom gëmuñu ko dañ siy jublu neexal nit rek dañ see jublu tamit lu tooyal seen ceeb rek buñ ca bàyyee ko boo leen invité nag fu ne dañ xoo seen xarit c'est dañ ma tey tey mañ lañ invité ci penco déglu ma seetaan bi laay tey ma taal télé bi tey ma toj ko ah, du ko defee kenn ku ci nekk nga téye sa téléphone bi léeg-léeg mu am yoo fàtte gars yi message la ko nga liir di yooyu yëpp <laughs> muy beneen musiba ci musiba waaw di nekk li ngay wax te gëmoo ci dara te mun naa am làq nga 60 ans làq nga sax mun naa am lu ko ëpp yaa ngi ci sa kuusu bàmmeel war a dee te yooyu yëpp seetoo ca dara dem dem ba nga xam ne ki nga farak dem na ba gënal la yonantu bi mu dem ba mu gënal la maanaam euh, euh, sa sa sa borom bi la bind gënal la li nga xam ne tey yaa ngi ko war a fekki tey boo deewoon tey war koo bàyyi yooyu yëpp dafa jar te te Oustaz beneen ayibu làmmiñ yi te mu ngi mel ne ñaaw làmmiñ dafa soppeeku nekk rafet làmmiñ léegi waaw ñaaw ñaaw maanaam wax ju bon nit ñi fonk nañ ko léegi loolu te moom lañ gën a tasaare sax damay wax ne ñun bonuñu waaye dañoo bëgg lu bon <laughs> bonuñu mais dañoo bëgg ko bon tey boo fi jëloon ki bi si musaabaqa bi passé Sonico ki ko jëloon première njàngam alquran nga dagg ci ñaari aaya sànni ko partagé ko jël benn saaga bu waajoo xam ne dafa saaga kilifa giñ gën a xormaal tey fii ci réew mi mbaa ci àdduna bi sax ala kulli xaal ñaari vie ñaari ñaari ñaari kii nga nga nga envoyé leen ñi tasaa ñiy dox ci net bi 24 heures boo xoolee tey saaga woo mooy ëpp vie jàng alquran ba te boo booy dox ci mbedd mi itam bële ngay. gis dégg ñu commande boo seet ñooy ëpp ñi partagé ayab alquran bi man ragal naa sax al ju ba tudd am 100 vies te bii balaa balaa balaa am vingt heures da nga am lu ma ñetti million mbaa lu ko teg ñi ko partagé moom doo xam nuñ toll. kon boo mën ngaa wax ne waa ji de ah bu bonul tamit bëgg na lu bon de waa ji de su fekkee bonul tamit bëgg na ku bon <laughs> nit ki nag bu ma ne bu bëggee lu bon mbaa mu bëgg ku bon man ta mucc ci mbon moo ko bu ki bon ki kenn rek lañ. waaw. Euh, loolu te boo gisee boo xoolee. man tashabaha bi qawmin fa huwa minhum man tashabaha bi qawmin fa hmm, huwa minhum hmm. te boo xoolee alxuraan li mu waxee kàddu gu baax ak kàddu gu bon daanaka bu ni nit ñi xamoon xanaa ñu soppi doxalin. ni mu ko nirelee darabal waaw daraballahu masalan. kalimatan tayyiba kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba asluha saabitun wa faruha fi samaa'i tu'ti ukulaha kulla hiin bi idni rabbiha wa masalu kalimatin xabisatin ka shajaratin xabisatin bo même boo déggul làkk wi sax di nga xam ne lii jàmm amu fa <laughs> ujtusat <laughs> min fawqil ardi ma laha min qaraar nga xam ne gam-gam li ñaari garab yooyu yooyu yëpp waaw moo tax hmm. yàlla day bëgg toujours ñuy wax wax ju rafet wa hudu ila tayibi min al qawli wa hudu ila siratin hamid la wax ne bu ngeen demee ba wax wa isaa qultum fa'dilu walaw kaana za qurba yàlla wax ne wa qulu li naasi xusnan door a wax ne wa aqimu salaata yonentu bi ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri falyaqul xayran aw li yasmut man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri falaa yu'di jaaro yonentu bi ne wallahi laa yuminu wallahi laa yuminu wallahi laa yuminu qiila yaa rasulallahi man laa yumin qiila man laa yëmanu jaaruhu bawaa'iq mm-hmm. kon nag loolu yonentoog lëmm bu fekkee dafa wax rek dëgg la wa maa yantiqu anil hawa tawatina mu gën ñetti yoon ne billaahi gëmut yàlla billaahi gëmut yàlla ñu ne ko ko gëmut yàlla mu ne mooy koo xam ne ay àndandooram ak i ay xaritam ak i ay mbokkam ak i ay dëkkandooram hóoluhuñ ak yàqam fu mu toll rek mi ngi fexe mbaa muy wax mbaa muy jëf loo xamee dafay yàqal nit yonentu bi nee na képp kuy def loola gëmut yàlla donte ma ngay julli gëmut yàlla donte dem na màkk di lim yoon yu dul jeex tamit gëmut laa yu'min mm. waaw bu dee rek dem safara mm. moo tax gis nga làmmeñ dafay wax làmmeñ na ko nag àdduna laa la liggéeyloo bis boo demee ba taxaw àllaaxira nag wàcc nga liggéey waaye xam nga làmmeñ li muy liggéey fii bu ci continué woon àllaaxira dafay ëpp moo tax boo demee ëllëg ba taxaw ki sa kanam borom yeneen cër yi la yàlla introsé mais làmmeñ dafa ne yow noppal naa la al yawma naxtimu alaa afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim mu ne nag tey tey loxo mu baaxoowutoon wax mooy wax làmm tànk mi baaxoowutoon wax mooy wax awra mi baaxoowutoon wax mooy wax biir mi baaxoowutoon wax mooy wax yow mi baaxoo woon wax tey damaa bëgg nga baaxoo noppi ndax danga doon wax yi ñu noppi tey nag damaa bëgg yow nga noppi yi wax moo tax al yawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim moo tax kon su fekkoon ne tey làmmiñ ni mu continuer di waxee nii bu taxawoon ci kanam yàlla continuer wax musiba am day lay ba génn dafay lay ba génn ca rek <laughs> waaye dangay ñëw rek yàlla introsé loxo lu cër bu nekk mooy wax la mu def mu wax la mu def mm-hmm. waaw waaw boo waxee mu ne ko waaw yow ku leen tudd loo mu ne antaqana allahu alladi antaqa kulla shay loolu loo ca mën a ti dara jeex na fekk yàlla cër bu ne ak not bam lay laaj rek ci mi ngi mel ni xale yi di def examen rek matière bu ne ak lañ ñaata note lañ la ca laaj mu ne loxo deux cent note laa ko laaj ñett deux cent points laa ko laaj kon waaye moom heureusement soixante la am tànk maa ngi ko laajoon trois cent mais heureusement vingt la am awra maa ngi ko laajoon cinq cent mais heureusement dix la am foofa nag ñu boo ko dajalee doo am moyen waaw kafaa bi nafsika al yawma alayka xasiba nga taxaw ne yaa waylata maa hmm. kon yooyu yëpp jar na bàyyi du wax ne defuma ko waaye day naan fàtte woon naa ko <laughs> ko def ko mu yëpp jar na bàyyi xel asan lu jar a bàyyi xel la muy làmmiñ ak ni muy tasee kër yi làmmiñ ak ni muy tasee société yi làmmiñ ni muy euh, indi ay histoire ci mbedd mi làmmiñ ni muy feesalee kaso yi làmmiñ ni muy teqale euh, ñaari woy dencante ñaari xarit ba mus naa dégg sëñ Cheikh sax ci benn wax mu ne ñu ngi ci jamono joo xam ne koo taseel boo ko gijee gis ne li ngay dégg yëpp du man de waaw waaw wax ko loolu rek parce que <laughs> ndax ndax rek euh, làmmiñ ni mu bari mu yàqu téléphone yi melul nii mhm. waaw rawatina léegi te léegi la ko jamono ji gën a laaj mhm. jërëjëf Oustaz Hady ñu ñëw ci ñaareelu xaaju waxtaan wi muy laaj yi fi desoon ñu wàññiwaat ci kii dafay laaj Oustaz Hady ne dafa ñëwoon di julli julli farata am ku ko seen kooku ñëw di ko roy ndax ñoom ñaar dañuy am ngëneelu mbooloo wala bokk il faut julli ga déparé loolu mu door a am xasan masalatul ixtilaafiya la ci boroom xam-xam yi boroom xam-xam yëpp d'accord nañ ne ñoom ñaar ñëpp am nañ julli boroom xam-xam yëpp d'accord nañ ne kiy roy di maamoom bi am na ngëneelal mbooloo ndax lii may maamoom ngëneelal mbooloo mooy yéene ak royam ci imaamam moo xam imaam imaam bi moo ko njëkk a départ moo xam dañoo départ andoor waaye nag wuute gi mi ngi am ci imaam ji imaam ji nga xam ne bi muy départ ak julli gi dafa yéene woon julli moom kenn ñu dem ba ci kanam mbooloo dab ko ndax mbooloo aljamaatu isnaani fa saaidan su boobaa ndax moom mooma julleem googa dana mën a soppeeku am mu am ci ngëneelal mbooloo te ba muy julli commencé julli gi dafa yéene woon julli moom kenn foofa la werante am ku mel ni imaamu euh, laxamiyu moom dafa ne ba mu amee ku ñëw ñaareel ko rek wala mu am yeneen ñaar ñu ñëw ñetteel ko rek mu nekk imaam fa mu nekkee imaam rek foofa la ngëneelal mboole lu duggee moom mu ne ngëneelal mboole daal xasala fadlal jamaa bi mujaradil imaamati mu ne foofa rek mu ne foofa la amee imaama ga loolu la imaamul laqami yu wax moo tax nga dégg boo jàng xale mu ne waxtaara fil axiiri fil axiiri joojee ñu ngi ci nam masala mujj imaamul laqami yu moo tànn loola mais boo demee ko mel ni mahdanu baaba borom xam-xam bu mag la moom dafa ne waa ji am na julli waaye amul ngëneelal mbooloo bu sëlmalee bu gisee maneen mbooloo muy baamu muy muy muy baamu seen julli ga ñuy julli wala baamuwuñ sax ña ngay julli daal moom mën naa baamuwaat ngëneelal mbooloo loola ngir mu am ko al oustaz Xasan hmm. jërëjëf oustaz Adi euh, kii itam dafay laaj lu xaw a jege loolu nee na euh, léeg-léeg nga gis ci benn béréb boo xam ne ka ka fay jiite am na ñoo xam ne ñoo ko gën a jàng Euh, nekk ca mbooloo ma ndax loolu wàññeent la wala déet. xam naa bu doon wàññent ñu bari danañ wàññeeku ndax nit ku nekk man ngaa xam sa jiite gi waaye doo xam ñi nga jiite ñooy ñan am na ki ñëw xam ne yaa ngi leen di jiite ñoo la ëpp xam-xam fuuf ñoo la gën a ragal yàlla fuuf ñoo la gën a maandu fuuf. gën la neex baat sax. gën la sax neex baat gën laa rafet alquran. Euh, moo tax yonentu bi noppal nañu ca loola yonentu kenn du kursuwanteeg moom ci xam-xam ak mbaax waaye moom ñëw na mu roy ci gannaaw Seyduna Abubakar te xam nga kenn du leen tëkkale kon kook moom tontu na laaj bi ñaareel bi xam naa màkka gi li fay aji ci juróomi continent yi nekk ay wëliyu yàlla ñëw di roy ci imaamu màkka ji bu leen gënee neexal xuraan tamit bëri nañu ko ca raw de. am xam ne seen bu yëkkati woon seen baat. baat rek mun naa am wala dana bari daal ñoo xam ne daal duñ moromam waaye nag li ñuy bëgg rek bu ñuy tànn ak imaam di ko jox imaamatu gi fii ca gox ba na fekk foofa moom moo fa raw ca gox ba ca place booba noona loolu la ñuy bëgg ndax fuqaaw yi dañuy wax ne wa ya'umun naasa afqahuhum ki gën a dégg fiq ab maanaam afqahuhum maanaam alamuhum kook lañ bëgg maanaam mu mu mën a jiite nit ñi foofa waaye na su fekkee ne yow fii ci gox bi yaa fi dàq xam yaa fi gën a am xam-xam gën a ragal yàlla gën a baax beneen waaye ñëw fële pànkam li xew léegi ba xëccoo imaama ga di ko jiite kooka moom xor na yàlla war na yonent bi man am amma qawman wa huwa ya'lamu anna fihim a'lamu min man huwa a'lamu minhu faqad xaana allaaha wa rasulahu la yonent bi wax képp kuy jiite aw nit te xam ne ñii ngay jiite xam la wax de xam nga imaamu màkk ji buy jiite xamul ne xam na ñu nekk ci gannaawam ñu ko roy waaye moom nag xam na ne tey ñi nekk sama gannaaw tey am na fi ñoo xam ne ñoo ma ñoo ma gën a yelloo lii may def mu ne yow ma def loola te foo koy def ku koy def ka kat lay doon yonentu bi na ne kooka faqad xaana allaha wa rasulahu xor na yàlla xor na yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax bu ñu bay tànn daal ci quartier bi ci jàkka ji ci gox bi nañ seet ka fa ëpp xam-xam jikkoom doy leen ak maandoom ngi jël imaamatu ko jox ko ko bu ko koo xam ne nag moom waajee ko raw foofu xëccoo ak pànkam ak ay nangam ba ñëw jël jàkk ja di ko jiite xor na yàlla xor na yonent bi ndax man am amma qawman wa huwa yaalamu anna fihim man huwa aalamu minhu faqad xaana laaha wa rasulahu xasan waaw ah, jërëjëf oustaz Adi kii itam dafay laaj euh, yenn produit yi nga xam ne dafay ñëw jógee xëy na ci réew yoo xam ne duñu réewu jullit euh, mu nekk yoo xam ne dañ koy lekk te mu jógee ci lu ñu rendi ndax dina jar bu boobaa ñuy xool ba xam ndax rendin wa awoon na yoon wala bokk dañuy consommer rek. Xasan li ngay jot yëpp di ko war a lekk mënoo gëstu cosaan la ak cosaani cosaan la ndax bu njëkk ba li daggan dëgg mooy loo xam cosaan la xam cosaani cosaan la ki jamono yonent bi yi mu jigi mbir yi yàqu maam alaaji ne lu dagan mooy loo xam ne xam nga cosaan la rek mu ne mu jigi jamono yàqu lu dagan mooy loo xam ne da ngaa réere cosaan la <laughs> kon yooyu ñuy importer tey ñi cay jot mooy loo xam ne ñun dañoo réere cosaan la te réere nañ ko saan la ndax rendin wax réere nañ ko saan la ndax borom wax na bisimilah yow booy lekk waxal bisimilah rek te génn ca moo tax yi ñuy importe ñaara fi mën a ne am na ci yoo xam ne dañ koy importer muy lu ñuy lekk lu mel ni fromage beeg yu mel ni deneen yi mu bàyyeekoo ci réewi nasaraan yi su boobaa lekkal ndax wa taamu lazina utul kitaab xillun lakum wa taamukum xillun lahum wala mu bàyyeekoo ci réewu musrikuna yi su boobaa dañ lay tànnaloo bu la neexee lekkal bu la neexee bàyyil ndax bul fàtte ne saxaaba yi bi ñuy ubbee iraq te booba eh, eh, saxaaba yi bi ñuy ubbee iraq te booba iraq jaamukatu safar lañ ay majuusi wu na lañ daa nañ fa lekk fromage te fromage xam nga ne mi ngi bàyyi ko ci gàtt yi nga xam ne dañ koy ren ni mu dagana lekk ñi mën ko jël di ko def dem niñ googu waaye terewul ñoom dañ naan lekk fromage yi foofa kon tax cosaan la réer na leen rek ñu mujj jëfandikoo loola di ko lekk xasan hmm. euh, jërëjëf Oustaz Hady euh, kii itam dafay laaj nee na dafa doon labat benn soxna mu dem ñu euh, mu jébbale guro ñu ne ko dinañ la may soxna euh, ñu bàyyi ba lu mat ñeenti weer ñu door ko may soxna soosu mais ndeke ci diggante bi yàkkamte na ba jaxasoog soxna sa ba soxna sa won na lor moom nag ginnaaw ay weer rek daanaka lu mat juróomi weer rek soxna sa am doom bu boobaa atteeb waa jooju naka la atteeb de mooy dañ koo xaarloo woon te diir biñ ko xaarloo xam nañ ko ci ay weer waaye fu ma nii nag moom dana xaaraat xaar goo xam ne ci soxna sa kenn xamatul diir bi fan la yemi kon bu fekkee ne soxna si dañ laa wax ne bu weer wi wala weer yi danañ la ko may dangaa war a fekku nga téye sa bopp nga maandu bañ may la ko sëy ba ami seede sëy ba nga joxe can ga sëy ba kilifaam tamit may la ko wala ka fa wuutu kilifaam yow tamit nga nangu mbaa ki lay nangul sëy ba door a mën a fasu ki ñeenti ponkam ya waaye danañ la may rek nga joxe guróog neexal mayeguñ la rek nga dem am ak soxna sa rapport ba soxna sa far jëlee ca ëmb yow xam nga ko sax wala xamoo ko nga jàllal bi ku takk ko ca biir ëmb ba soxna si sëy si juróomi weer mu am doom buñ la attee ci bu Malik ci Malik ak boppam ak li gën a bari ci ngiram mi waaye du ñëpp dañuy tas say booba noona jàllar xeeñ la soxna si dootoo ko mën a takkati abadan Malik nag atte bi da ko def xiyaasu sëbahi xam nga ne Oustaz Xasan kenn ku nekk ci ñun lislaam may na la nga doon sa baay bu la njëkkee dee ak say doom ak say soxna ba mu la ko mayee nag boo yàkkamtee ba tax nga dem rey ki nga war a donn lislaam dafa lay xeeñ ndonu ga te mayoon na la ko ba pare Malik timin mu ne bu la yàlla mayee soxna sii ne dañ la ko may dagan na nga dem takk ko waaye bu nekkee ci yeddaay jàmbur walla mu nekk di jabari jàmbur wala mu nekk ci ak laablu xaaral ba loola jeex nga door koo takk yow nga dem yàkkamti may ga ba jël ko ci ak laablu mbaa nga dem ba jël ko ci ak yeddawu joteeg moom ca takk googa dafa ko xiyaasee ci ki mënoon a doon sa baay yàkkamti tax nga ray ko yow tamit yàkkamti tax na nga dem takk sëy bi foo xam ne waruñ ko foon takkee am ak moom rapport foo xam ne waruñ fa woon am ak moom rapport ñu far xeñ la ko dootoo ko mën a takkati mukk mu taktaloo ko aaya jële alquran ne wala tansimu uqdatan nikaahi xataa yabluxal kitaabu ajalahu kon nag kitaabu ajalahu la waxoon ajalahu am na ba pare yow ajal bi amagul nga def def ko mu ne te yàlla tere bu leen ko def kon nag mu ne dañ la koy far xeñ loolu mooy Malik ak lenn ci ngiram loolu lañ gëm waaye bu fekkee ci imaamu Shafii la takk nga soxna si ci ëmb xam nga ko xamoo ko am ngeen rapport dafa ne nañ ko tas bu bàyyee ba mu am doom ñu takkaat ko takk bu bees may la ko loolu moom la saafi yu gëm ca saafi yu na ya waaye lii la maalik gëm nag ca maaliki yu na ya ñun nag maaliki yu na lañ mazhaban kon loolu la maalik gëm loolu mooy atte bi al usaas asan donte nag ngiram mi yëpp sax ànduñ ceeg moom borom xam yu bari ñu ngi ci biir ngiram mi mais ànduñu ak maam hmm. maalik ci masal moomu xasan hmm. maalik ak maalik ya waaw maalik ak maalik mais duhul maaliki yi nag yëpp. Mm-hmm. jërëjëf Oustaz Adi mu ngi mel ne waxtu wi euh, dab nañu ñu teg suñu loxo foofu yaakaar na wala ñu indiwaat beneen laaj Oustaz Adi kii dafay laaj euh, nee na dafa dugg ci ay bàmmeel bàmmeel yooyu nag ñaari woy juróom nga fa mu yaayam ak papaam ak sëriñam muy laaj buy ziyaara ci ngëneel kan la war a njëkkee ñaari woy juróom wala sëriñam. xasan bu fekkee dugg na ci armeel yi fekk fa ñett ñooña buy ziyaara yaayam la war a njëkk siyaara ba pare ndax saxaabi yi bi mu laajee yonantu bi ne ko ana kan ci nit ñi moo gën a àq moo gën a moo gën a yell ma rafetal jëmee ci moom dafa ne ko sa yaay waxul ko ci dund rek nag loolu tënk na dund ga tun tënk na timit deega ne ko sa yaay sa yaay ba muy ñetti yoon door koo wax sa baay moo tax kon dafay njëkk siyaare yaayam bu ca bàyyeekoo door a siyaare baayam bu ca bàyyeekoo door a mujj siyaare sëriñam ndax ñaan yi root ci alquran wala mu root ci sunna bu ñuy ñaan waajur ñaan ak waajur la ñuy jiital ci ñaanu sëriñ moom ngay jàng ca ñaan nga sax rabbi firli wali walidaya la yonentu yàlla nu wax door a wax door a wax ne wali man daxala bayti ku nee nga ca boo demee tamit booy ñaan da ngay dégg ne rabbi firli wali walidaya wali aimatina wali aimatina nag mooy suyoox yi rek mooy asiyaaq ya kon ci tëgginu ñaan yi toujours boo koy jàng da ngay ne yow yàlla jéggal samay waajur jéggal suñu kilifa yi diine yi ji jéggal suñuy sëriñ yi moo tax kon nag te te siyaara ji bàmmeel ñaanal ko rek la kon njëkkeexal ci sa waajur su paree nga door a dem ci sa sëriñ booy njëkkee nag njëkkeexal sa yaay boo ca bàyyee ko ca xabroom ba dem ci sa baay boo ca bàyyee ko door dem ci sa sëriñ xasan jërëjëf Oustaz na Euh, dafa takk soxna ndeke dafa ëmb xamu ko woon luy àtte bi ci moom ak ci soxna si su fekkee dafa takk soxna si rek fekk dafa ëmb sonnuta am ak moom rapport ca takk googa na ko bàyyi mu bàyyi ko bu demee ba soxna si am doom mu takkaat ko takk gu bees door a mën a ànd ak moom su fekkee ne nag da koo takk fekk mu ngi ëmb moo xam ëmb bi ci moom la soqee ko moo xam ci keneen mu am ak moom rapport ba pare door a xam ne soxna si dafa ëmb boo ko àttee ci maalig ak boppam ak lenn ci waa ngiram mi dañuy tas sëy ba du ko mën a takkati mukk mu def ko xiyaasu sëba yi ci koron waroon doon baayam ray ko ni ma la ko waxee boo ko àttee ci imaamu Shafii yu nag nañ bàyyi ba soxna sa am doom moo xam ànd naag moom moo xam àndut ak moom yëpp ñu takkaat ko takk gu bees soxna ci dagan ko ñoom ñaar ñëpp ñu dagante ndax Shafii yu nee na abada tahrim amul ci alquran amul ci sunna lu dul liaan li'aan rek ngay fekk ci alquran muy agrebo yàlla ne dootuñ mën a takkanteeti abadan waaye dootuñ mën a takkanteeti abadan ci alquran mbaa sunna lu duhul li'aan amut foofu rek koy fekk moo tax loolu la jël xasan euh, Oustaz Hady kii nee na ndax rey ay melentaan ci julli am na lu ci nekk wala déet rey melentaan nag comme melentaan wax dëgg yàlla màttut la wala bu la màttoon tamit matt matt ba war nga ko war a mën a muñee bànneex ak julli gi wax dëgg yàlla waroo faa nekk di julli bay tal ray melentaan te boobaa sax xam nga ne boo demee bay soxlawoo ray melentaan yi noona loola moom nga soxlawoo ko bokkutut ci julli gi yonent bi nee na julli gi li muy rëy rëy ak li muy yàgg-yàgg lañ cay bindal jullit bi mooy la xelam nekk ci julli ga waaye la xelam génn julli ga bokkutut boo demee nag ci laxdar yi téere bu am solo boobu dafay wax ne su fekkee ne da doon julli jaan fen feeñ walla jiit man nga koo rey waaye goo xam ne jëf da ju yàgg ray goo xam ne du la tax a dëddu xibla su boobaa dara nekkut ca waaye melentaan daal wax dëgg yàlla war nga koo mën a muñal nag ca ba ba <laughs> ci julli ga noonu même boo julliwul sax war ay ray melentaan moo euh, moo moo gën daal moo ëpp yërmande yonent bi dund na ba génn àdduna melentaan waaye comme jaan moom bu la roru bu la loru dana roy kaneen te bu la ja mattee foog ñu lugg la man nga cee jële man naa yéeg nga dee boo nekkee ci julli gi daal nga nekk ku njax laf rek yaa ngi yore dàll ba ngay sujjóor rek nga gaaw wala nga yore yat rek duuraale ko ko mu dee waaye nag boo dooree mu ñu ne jaan jàng fale nga dem fa fale jëf ja yàgg su boobaa julli nga yàqu na moom xam naa daal góor dëgg moo mën a rey jaan ci julli hmm. te du yàq julli ga waaye bu nekkam hmm. yambar hmm. bu reyee jaan ja tamit jaan ja rey na ko ndax yàq na julleem bu dee tukkuloor moom dina ci boole wax sax mu kar leen ko nanga ma ko waaw julli nga yàqu <laughs> ah, jërëjëf jërëjëf Oustaz Hady ñu teg foofu suñu baaraam ba émission bii di ñëw incha allah ñu àggale continuer rek laaj yi fi rot ñu leen di sant bu baax a baax di leen euh, gërëm di leen jox euh, beneen dox daje ci ak alalaama Cheikh Mouhamadul Hady Niass ci laaj yi ngeen di yónnee mu koy euh, tontu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. الدين والحياة برنامج أسبوعي يقدمه العالم العلامة Fatwa di émission bu radio télévision Walfadjri di defal ay bés bu jot ci waxtu wi ak oustaz Hady